dimanche 13 juin 2021 Boy Pouye moo ñu ginnaaw Taxa Seeraas lay bëreel ñoom ñaar ñi ngi nii Boy Pouye Taxa Seeraas am victoire ci kawam Boy Pouye mi ngi mujj ci xale bi nga xamante bi nii mooy jam soo daal di koy daan ñi ngi noonu di lewtoo Balla Gaye Seras wala Balla Gaye Junior Takké ak Boy Pouy bu école de li Cheikh Mbaba Boy Pouy Takké Seras waaw Takké Seras moom lañ jàkkaarlool moo ëpp Boy Pouy ak Takké attention Boy Pouye door na. Takké Boy Pouye. Boy Pouye dooraan na Takké fayu. daje nañ Takké kor na ko door. dooraan mbaa du ko door mu daan. Takké war na ko ndomba daan na ko. Takké Seras daan na Boy Pouye. Takké Seras daan na Boy Pouye. Takké Seras daan na Boy Pouye. Takk Seras daan na Boy Pouye xale baa ngi noonu Takk Seras la mbokkam ndeyam Siteu la Mama Lamine Abou Ndiassé caatu Fora eh Takk ngay door eh Takk mi mandi de ca Père Max la jëm leng na Père leng na Père leng na tarkinda maam Ngathie Fall képp la foo jëm tey ak ëllëg Ibra Fall képp ma ñëw di sant rek xoolal waa Joof Yoor cër bi nga jox booy waa cër bi cër bi non cër mooy yoon ndax booy puy jël na ma mais daf ma disee xam ndax guur yàlla yee day am liggéey métier bi ma yor nag maa ngi siy sant sama papa bu yee man sama papa tey de mu jëlee loxoom teg ko sama kaw bopp. yee dama jooy. ndax loolu yombul si sama papa. yee fi ma jëm. sama morom yi sama avance. waaye ku ñëw ma jël avance am. yow mbay guy gi mii. fayam. xoolal kooku. su ma nee daanaka génnee na million. def ko si làmb ji. mu ne ma yow sama doom nga tax da gore. non mooy barke maam Serap Fall sama oto sëfrel la moteur bi dafa kuule lépp si làmb ji xoolal koros korosement. dafa umbale ndax dafa fekk gaynde bu mer di daas di fanaan. ndax dafa xamul sama jëm ndax chaque jour maa ngi koy romb buntu Pikine mais dama koy saale yére yu ngande laay sol mel ni ku entraîné wul. mu jàpp ni man entraîné wu ma mais du beneen yoon tey su amee làmb adversaire na ko jox cër. loolu rek dafay joué. ñun tarkindaay fecc dafa bokk si làmb gis nga amateur yi doo feccee yee dañuy yuux dañuy kontaan am na ñoo xamante ne spécial loolu rek moo leen tax jóg yee ñeneen ñi nga xamante ni li nga bëri rek moo leen tax a jóg xaadim làmb baaxu da see bokk bëri da bokk ay feem da bokk mais nag maa ngi sant ñëpp ndax làmb ji maanaam euh, dama see sonn li ma si daj dafa métti dama dem ba sama moyen bopp mun yi ñoom ñoo si mujj génne seen munin di si def ñoom Ibou Ndiawo gars yi bi ñëpp du ma limee damay juum sama raq ñoom Lamine metti na gis nga euh, kii sama oto dafa paan barki arxuraanu karim euh, caajaay la paan caajaay laa ko tegee tànk taal moto teemas yee teg ko tànk ba jëm ñaajo benn bàyyi faal ñëw fekk ma fa ne ma lii doo ko yeggali yee jël ma takk ma yeggali ko mais coono yu ma si daj moo bëri di sant lawbe yi ku si mel ni Fuuta booy jibi lawbe booy mënu ma fay taala bàyyi faal Assane Zik booy dañoo bàyyi seen métier def seen lépp ngir sama jëm. léegi foo jëm comme que daan nga booy. yooyu fi ma dugaat bawal nga ma wax nee nga ma da ngay dugaat bawal ñu woo ko. ñun ak waa bawal. mooy bi la ñoom suñ ñu amee dañuy kontaan. kéwél. yee su ma moo combat maag moom day neex. combat ñax jëriñu la am. waaw su génnee foofu ñoom ñaar ku si daan. yee yàlla yàlla ko ñax jëriñu daan ndax man ñax laa dëkkal. kii ak wuli dër daje na. yee di ñaanal su ma raq nag liis njaago. yee mu am ndam. yee booy yi fa nekk yëpp booy jàmm maama Lamine Youssou waaw tarkindaa yëpp waaw képp ku dëkk jàmm gën maa ngi lay ñaanal ndam